Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et daara ji ñu ngi ko taxawal ci euh, atum 1986 te xalaatub lenn ci ay kilifa yoo xam ne euh, ñu ngi ci bokk ci famille Alhaji Ibrahima Dia euh, biñ ko xalaatee ci noonu ba am yéene taxawal béréb bi ci lañ kilifa gu ñu wax sëñ Modou Rokhaya Mbacké ci moo joxe béréb bi Euh, ñu taxawal ko depuis boobu ba tey ñu ngi fi euh, fii ci Daaru bi ñu koy taxawal defe naa kenn nit moo fi nekkoon du benn jàngalekat moo fi nekkoon ànd ak ay ndongaam euh, mu leen di jàngal ba tey yàlla dogal na agsi na fi diggante bi nag li fi mokkal ci ay nit ci alxuraanul karim kenn xamul nu mu toll ndax ay ay centaine de personnes la li fi jàngee ci nit tamit ay milliers la jàngalekat yi jamono yi ñu ngi toll ci fukki jàngalekat ak juróom-ñett bu ñu xëyee huit heures la ñuy dugg midi la ñuy wàcc quinze heures la ñuy dugg dix huit heures la ñuy wàcc su fekkee externat bi su fekkee internat bi ñoom ñu ngi dugg quatre heures danañ jàng fajar bu ñu wàccee neuf heures la ñuy duggaat jàpp neuf heures trente ngoon gi trois heures trente la ñuy dugg jàpp quatre heures euh, marax gi dañ koy jàng comme ni ko daara yëpp di jàngee. waaw daara ji nag xam naa ci bu dee ci biir daara ji amul njàngum français waaye am naa ab école boo xam ne ca daara ji la juddoo euh, mooy école bi nga xam ne moo jàkkaaroog daara ji di institut euh, di franco arabe alhaaji Ibrahima Dia mook daara ñoo jàkkaar doomi daara ji la ba tey bari na ñoo xam ne bu ñu mokkalee alxuraan ci biir daara ji foofu la dem di fa jàngee waaw bu dee daara ji nag moom du fay daara ji moom xam naa sëñ Ablaye Dia ñu ngi profité foofu di ko sant bu baax te di ko ñaanal di sàkku ñëpp ñu ko moom wax dëgg yàlla jël na daara ji en ba nga xam ne euh, ñu fi jàngee ñëpp duñ fay te lim bi fi mu ne àgg na ci euh, juróomi téeméeri ndonga euh, waaye kenn du ci fay lépp moo ko jël en charge ba tey ñu dëkk ci biir daara ji mat nañ 300 personnes te ñoom ñëpp moo leen jël en charge ñuy jàng te duñ fay dëkk ci biir daara ji boole ko seenug dund ak seenug pay ko seen uh, kii uh, wér gu yaram loolu lépp ñoom ñoo ko yor te uh, duñ ci laaj kenn benn dërëm sëñ Ablaye Dia ak sëñ Moustapha mi yor wàllu finance bi ak soxna maam Anta mi nga xam ne moo yor wàllu dund gi waaw. waaw daara ji nag am na ay charte comme ni ko daara yëpp amee benn xale bi ñuy jël danañ fexe ba mu doon xale boo xam ne ku mat a jàng loolu moom mu ci ëpp solo beneen baat danañ fexe ba nga mën a sàmmanteeg charte su euh, waxtu wi ne moom la ñu dugg su fekkee externat la nga fonk ko yooyu yëpp dañ ko ciy bàyyi xel ak euh, xale bi nga xam ne euh, ci internat bi la dañuy jël ki nga xam ne chaque jour ay waajuram danañ mën a sàmmante kii bi surtout ci wàllu nekkinu fii comme que ñoo ko yor li ngay sartal mooy ay mat la ak yu mel noonu daanaka loolu mooy doon charte bi ak nga fonk waxtu bi daanaka boo xoolee loolu mooy doon charte bi. waaw bis bi defe naa ñi ngi ko njëkk a def ci atum 2003 wala 2004 boobu ba tey. at mu ci nekk dañ koy euh, amal comme ni nga ko amalee ni nga ko gisee ñu amalee ko nii tey bis bu nekk euh, it ni koy defee moo dañuy xool ñi nga xam ne ñoom mokkal alxuraan ci biir daara ji ñu jël leen gaaral leen ci kanamu nit ñi ñu jàng leen ci ay ay euh, alxuraan bu ko defee mbokk yi yëpp diglu ko waaye daal li wér te wér mooy bis bi moom chaque année rek def gi jublu gi mooy sargal ci gone yi nga xam ne ñoom mokkal alxuraanul karim waajur yi ñëw teew xam ne daara ji ndekete ñu ngi doon góorgóorlu dem ak barki dem dañ doon sonn ci biir daara ji loolu daanaka sooy ne mooy jubluwaay bi. waaw ren lu mat ñeent fukki nit ak benn mokkal nañ fi alxuraan mel na ci bisu tari bi euh, fanweeri ak juróom-benn ñoo doon tari kon loolu daf lay woon ne yokkute gu mag a mag am na ndax daaw defe naa 27 personnes ñoo doon tari kon ren bu ñëwee ba 41 yokkute gi euh, bari na loolu macha allah. waaw dongo bi euh, ki koy jàngal mooy dem ba seere na xale bi mën naa tari kaamil mokkal la. bu ko defee ñu boole ko koo xam ne li ëpp ci li am sax ci biti daara ji lañ koy booleel koo xam ne mooy taxaw diglu ko ba seere ne kii ku mokkal alxuraan la bàyyi ci xel diggam ak suñu borom tabaraka wa taala su nee mokkal la ñu sukkandiku ca loolu hmm. mooy sant ñëpp sant mbokk yi nga xam ne ñoo teewoon ñëpp ñu leen di sant bu baax te di leen gërëm di ñaan yàlla fay leen gën gi fay ndax woote ñu wuy si la lu jafe-jafe la ñu ngi sant mbokki waajur yi yëpp mbokki dëkkandoo yëpp ñu bàyyi ko fa sori yëpp ñëw di ñaan yàlla mu fay leen te defal leen tawfiq Euh, jërë ngeen jëf mbokki Rafah TV euh, sant nañ bu baax jërë ngeen jëf Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer